yegsi nañu ci suñu rubrique euh, royuwaay ak Fatou Diouf fay lay doon dañu koy daal di bàyyi mun dalal ay ganam ñu daal di waxtaanee eh, li nga xamante ne tey moom la ñu nar moom nga ñu àndil. Mhm. waaw Fabel ni ñu ko waxee woon ñu war a waxtaanee ci royuwaay tey ci Serigne Mouhamed Modou Khari Bousso. Mhm. Euh, nekk ca Gédé Bousso bi mhm. euh, moom la ñu war a waxtaanee ni ñu ko waxee woon sànq ak suñu invité yi nekk ci plateau bi euh, di Serigne Abdoulahat Bousso ginnaaw ba mu nuyoo sànq waaye am na ku ñu rejoindre ci plateau bi. di Serigne Ahmadou Bousso ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mhm. ñu ngi leen di leen doon nuyu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu nekk. Mhm. di tàmbalee ci nuyoo beeg siyaar bi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha. mi mhm. nga xam ne mooy xalifa général di ñaan suñu borom yàggal ko dëgëral ko. di ko ñaanal itam mboolem kilifa yi diine yëpp. di leen sant di leen gërëm. Mm. ci jotaay bi. Mm. di leen delloo nuyoo itam. waaw waaw comme ni ñu ko waxee euh, Babé dañuy mm-hmm. waxtaanee ci Serigne Modou Khary Bousso. Euh, donc euh, ñuy wax sëñ Abdou Lahad bu ñu bëggoon xam Serigne Modou Khary Bousso danañ gën mën a wax ci wàllu dundam ak ci wàllu jàngam. Mm-hmm. jërëjëf soxna Fatou ginnaaw bu ñu loo waxtaan yi fi jaar yëpp. Mm-hmm. sant leen tamit ci yeete bi ngeen di yeete ngir lu jariñ askan wi. di ñaanal boroom kër gi yaakaar naa fan yi lañ ko doon fàttaliku ngir ñaanal ko yàlla ko yàlla dolli yërmande mu doonoon ko baax ci société bi mm-hmm. eh, koo xam ne amaloon na njariñ lool réewam ak eh, rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu daara mm-hmm. ak eh, ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu njàngalem diine ak alquran di nuyu sunu kilifa yi sunu kilifa yi nekk rawatina ki jiite yoonu murit di Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan borom mu yàggal ko fi te wéral ko eh, di nuyu Serigne Bousso bi Bousso moom moo njaboote mboolem eh, ku askanoo ci askanu Bousso bi mm-hmm. bu ñuy wax askanu Bousso bi nag mooy eh, Serigne Bousso bi ak Serigne Saa Bousso sëriñ Bousso bi moo bokk ak Soxna Jaara muy waajuru Xaadimu Rasuul nday ak baay Serigne Bousso bi Bousso ba ngaaj moo nekk ci bopp bi di xalifab sëriñ Massamba Faati mi nga xam ne tamit mooy waajuru sëriñ Modou Xari Fañang mi nga xam ne moo doonoon imaam yi di doomi Serigne Massamba Faty ni ñu ñu a waxtaane tey waaye di nuyu ki ko fi nekkal di Serigne Massamba Bousso mu Serigne Modou Khari ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy askanu Bousso bi ak askanu Mbàkke wépp euh, soxna Fatou ni mu ko waxee ñu war a indi jëmm jooju ngir fàttaliku ko ndax jamono moo ko laaj ci jamono ji euh, kilifa yu mel noonu nga xam ne dañoo am ay jikko yu baax ñu jaaral leen fi ñu leen jaaral ñu jariñ askan wi jaadu na ñu koy indi ndaw yi di mën a dellu ci ñoom ndax ñun dañoo am ay delluwaay yu wóor a wóor yoo xam ne eh, mën nañ cee jariñu saa suñu leen indee sëriñ Modou Khary Bousso moom nag bokk ci delluwaay delluwaay yooyu bokk ci mag ñi nga xam ne mi ngi bokk ci askan woowu di askanu Bousso soowee waaye eh, bokk ci ñi sëriñ bi defar moom eh, mu ngi gane àddina ci atum 1897 ci mbakke Bawol Euh, di doomi Serigne Massamba Fati Serigne Massamba Fati di doomi Serigne Bousso bi Serigne Bousso bi bokk ak Soxna Jaara lépp mu bokk ak Serigne Mbacke Bousso ak Serigne Cheikhou Bousso ñaari waajur ak ñiñ bokkal sëriñ Bousso bi ak ay doomu baayam di wàkkat Serigne Sa soxna Xari Fañang mi ko ko mi jur tamit di doomi sëriñ Sa Bousso di rakk Serigne Bousso bi ñu bokk baay loolu euh, la demee ci wàllu askan at moom it la gën a àddina waaye mu teel a dugg ci wàllu njàngum diine Euh, sëriñ Mbacke buso euh, jàngal ko alquran ak xam-xam yu bari euh, ba nga xam ne géeju na ci fànn yëpp ba noppi it sëriñ bi testé ko sëriñ Mbacke Bousso kenn ku nekk xam na ne al mufti moo moo doon muftil balad lu lu waaye gàtt-gàtt dégg-dégg waroon na xam darajaam ci wàllu xam-xam ak diine mu ko daa jàngaleloo ci kanamam daa wax nañ ne sëriñ Mbacke Bousso bu fekkee ne jàngal na la ba noppi daf lay digal nga jàngale ay téere ci kanamam ci lay xamee ne ba xam yow lim la jàngal dégg nga ko waaye mu doonoon koo xam ne biñ ko testé ci fànn googu bokk na ci ci ñi ci gën a xereñ euh, ba noppi it mu gëstuloo ko benn fànn ak doomam sëriñ baaxeer maanaam daf leen a gën a gëstuloo ci beneen fànn muy wàllu ilmul falak muy euh, ilmu nujum xaw ma nu ñu koy waxee ci français maanaam ñi nga xam ne seen xam-xam day màcc ci wàllu euh, biddiw yi ak jubale xibla dara natt maanaa mm, boo ko doon xool daal ci wàllu science fi mu ne nii lu kawe lay doon ci wàllu architecture muy xam waxtu ak temps xam jamono moom ci côté boobu la la la ko gën a formé nga xam ne ci ki ci rawoon ci Sénégal bi bi mu leen jàngalee ba noppi ci leen yabal euh, ci ndar ñu koy wax sëriñ Xaadi Njaay Sarr kooku bi mu leen nattoo moom ak sëriñ Baaxir soo gis na ne xereñ nañ ci fànn googu lool ba jumtuwaay yi mu doon jàngalee xam-xam boobu sax da leen ko may loolu nag bi leen ko sëriñ Mbàkke Bousso di defal am na lu taxoon xëy na dinañ ci ñëw ci kanam li taxoon mu defal leen loolu muy eh, sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Tuubaa daf ko digaloon ne ko ñaar yi nanga fexe ba eh, defal ma ko te bul buñ ko jëggaani fenn muy waxtu yu juróom maanaam waxtu yi heure yi nga xam ne ci lañuy ñuy julli li tàmbalee fajar ba gee mu taalif benn téere boo xam ne mi ngi ci mi ngi ko taalif ci diiru fanweeri at ak ñett nga xam ne bis bu xaw a lëndëm da koy noté ba déwén mu indiwaat ko nga xam ne ci la lay xamal ne ci lay xam ne jant bi heure sàngam lay génn tisbaar heure sàngam la jàngal la jàngal la ni euh, ni nga xam ne euh, mooy waxtu julli yan heure lay doon yooyu rek ci ci heure yi biir lay doon waaye ñu mu génne ko ba mu tolloo tamit ak heure yi ñu ñu mën a xam ne tey Touba une heure nangam la ñuy julli fajar ñu ngi ko julli euh, 14 maanaam 6 heures 10 nga teg ci juróomi minute bu dee fii muy 6 heures 14 waaw loolu bëggee maanaam xam-xam la liggéey bu téelé téere boobu suñu mbàkk mosa moom moo ko def mu digaloon ko it ne ko nang ma nang ma na nga ma defal tamit lu aju ci wàllu natt jubale xim la jumaa jumaa ji xam nga sëriñ bi sagam tubaab yi ay noonam lañu woon tey su fekkoon dafa dafa leen a bàyyee xam-xam boobu mën nañu bañ a juble xim la jumaa ji loolu moo tax sëñ Mbàkke Buso bi nga xamee ne euh, tabaxuk jumaa ji ci mujj ji fekk na ko mu xaw a tàmbalee tale mu formé ci ñaari doomam yooyu moo tax ñoom mu formé leen ci ilmul falak bañ géeju ci lool ba nga xam ne jumaay ji di jumaay Touba sëriñ Modou Khari Buso ak sëriñ Baxer sëriñ Mbàkke ci njëlbeen gi la ñëw waaye ñoom ñoo doon ànd ak aztèques yi ba jubale jumaa ji xibla muy liggéey bu am solo nag ci wàllu aztèque waaw maanaa nga xam ne tey gis nga Masalikul Jinaan gi nga gis Euh, doomu sëriñ Bakher moomu di Serigne Moustapha moo ko jubale xibla euh, loolu dafa doon liggéey boo xam ne tey dafay méngoo ak xam bii ñu bii ñu nekk nii tey am na biddiw boo xam ne dafay tiim kaaba gi waxtu wu nekk xam nañ ne Serigne Bakher Bousso ci biddiw boobu la dàkk ngir jubale ci xibla jumaay Tuuba loolu tamit ci seen xam-xam ba léegi dañuy xam waxtu biddiw boobu nattale nañ ko it ak jumtuwaay yu ñu àndal yoo xam ne tey saa su nekk dañ koy mën a jubale xibla kon loolu moo taxoon mu formé ko ci côté boobu mm-hmm. bi nga xamee ne nag jàngal na ko ba mu géeju ci fànn googu nag la koy yabal nag ci kiy defaree defarkat bu mag bi mooy xaadimu rasul loolu nag mi ngi am ci atum 1922 bi nga xamee ne dem na sëriñ bi téye na ko foofu sëriñ Tuubaa ci boppam tamit joxoon na ko ay donga mu leen di jàngal xam-xam dafay firndeel ak bëri xam-xam sëriñ bi ku dem ba mu lay jàngaleloo ay téeréem yu mu bind dafay firnde loolu waaye Serigne Touba yi gisoon ko muy ku sàmm ndaw lu sàmm xam nga Muhammadul Busri yu dafay wax ne alifan nuska wala hibadata wal xulwa tiflan wa hakaza nujaba maanaam yonente bi la doon way waaye daf ne ku nar a baax ku nekk dangay ngay miin jaamu yàlla ak lu baax waaye képp ku nar a doon tànneef maanaam mu gis ko mu doon koo xam ne waxtu fajar wu nekk waxtu yu nekk da koy gis ci jumaa gis ko mu sàmmoonte lool ci ak ndawam woo na ko ngir nag façon yéenee def li muy def ci moom benn bis benn yor yor da koo woone ko dama bëgg euh, sant yàlla ci yow ndax sunu borom daf ma may ma tarbiya sa sa sa waajur muy sëriñ Massamba Fati ndax si Massamba Fati mooy ki nga xam ne bi sëriñ Touba di wër àllu Touba moo taxawoon ak moom di ko toggal sax ñam wi mu daa jëfandikoo muy laa xam bu nga xam ne Euh, fi mu ne nii ndaw ko ndaa yi mënuñ ko lekk la xonj yu naqar yooyu sëriñ bi daa jëfandikoo moom rek moo daa taxaw moom ci biir àll bi moom ma masàmm fa kon loolu la ko wax ne ko maa defar sa waajur euh, kon dama bëgg sant yàlla ci biir ma mayee ma defar sa waajur defar la ndax moo yar suñ mbàkk bu soof mi ko yar ba indi ko ci sëriñ bi sëriñ bi war koo duy suñ Modu Xari nee na ci la ma sëriñ bi tàngale la ñetti baraada yoo xam ne su ma bëggee ngir bëgg koo jottali dara rek dafa dafa may gàntal ñetti baraada ataaya nettali ko tamit yoonu géej gi ba mu jeex takk maanaam digganteem ak tubaab yi nettali ko yu bëri def ci moom yu bëree bëri yoo xam ne uh-huh. euh, ci waxtu woowu uh-huh. la digganteem ak sëriñ bi noonu la ko uh-huh. sëriñ bi defaree ci la ñibbisi nag Gédé euh, sëriñ Mbacke Bousso fal ko muy imaami Gédé di jàngalekat bu mag foofu ci bi mu ñibbisee bi mu demee Njaareem ba am fa lu mat ab daanaka ci 1923 wala 1924. Mhm. ci la ñibbisi Gédé ñu fal ko. Mhm. mu jiite jumaayi Gédé daanaka lu mat juróom fukki at wala juróom benn fukki at yoo xam ne musta mhm. wuute julli waxtu juróom lu dul ci ak mujjam. ba ci ñaata at la war a wàcc liggéey. 1993. la wàcc ab liggéey kon loolu téeméeri at la. téeméeri at yooyu musu cee wuute julli ji ajjuma. musu cee wuute julli juróom lu dul at yi mujj yi nga xam ne eh, eh, tële na ko. te ay ñaari at lay doon wala ñett suñu borom it musu koo def mu doon koo xam ne dafay tawat xanaa mhm. am na may yàlla ci ko def noonu la amee woon ijaaba it koo mhm. xam ne lu ñaan suñu borom def ko doonoon na ab fajkatu aajo boo xam ne nit ñi dañ daa jógee fu nekk waaye noonu la torox la woon ci digganteem ak boroomam lool lool loolu mhm, ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ak ñi nga xam ne ñoo ay boroom xam-xam seere nañ ko mhm. seere su bëri ci wet googu ñu dem solo Serigne Ahmadou ñu dem ci sëñ Ahmadou Bousso ginnaaw oh. Serigne Abdou Lahad euh, ñuy wax ci qualité ak ki nga xamante ne mooy Serigne Modou Khari Bousso ki nga ci mën a wax mhm. qualité wala ay jikko ci moom dañuy wax rek ci benn tënk bu gàtt ne mhm. ni yàlla bëgg ab jullit mel ko mhm. noonu la ko yàlla melaloon Sëriñ Tuubaa bëgg ak nitam mel ko noonu la ko melaloon ndax moo ko tàggat def ci moom lam def ci moom kon lépp luy melo yu tànneef lépp luy jikko ju rafet lépp lu di ak mbaax lépp lu di ak woyof lépp lu di ak tabe ak mboolem makaarimul axlaaq yi nga xam ne suñu boroom moo taxoon mu yónni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu dekkalaat ko mboolem jukkoy tànneef yëpp mën nañ caa lim yu baree baree bare waaye yi ci gën a ràññ ko bokk na ci euh, ni mu dëdde woon àdduna doonoon ko ñëpp soxla doonoon ko yéeme ci ni ko sëñ Abdul Ahad waxee ci wàllu digganteem ak boroomam ak ci digganteem ak sëriñ bi waaye yàlla may koy mu doon ab xettali ko waaye boo xam ne faj aajo suñ boroom daf ko mayoon mu gaaw ci lool waaye boo ñëwee ci ak dëddam àdduna man ngaa ñëw sax ba ci moom nga di ko laaj jëmmam ci ngir ngir ngir woyofaloon gi mu woyofaloon àdduna ni ki noonu itam la nekk woon ko tabe koo xam ne daawul dencal dara ëllëg lépp lu mu masaana am daf ko daan jébbal ñu nga xam ne ñooy woy néew doole yi ko daan soxla te loolu suñu borom tabaaraka taala moo ko digle ci alxuraanu karim moo digle ñuy dimbale way néew doole yi moo tax kon loolu bokk na ci ay jikkoom itam bokk na ci ay jikkoom wala boog bokk na ci ab liggéeyam euh, sax ci di xettali mbindeef yi ak di jàngale di jàng euh, euh, di samp ay daara di yar nit ñi di leen teg ci yoon siraatul mustaqim ba defar ci ay nit nit ñoo xam ne fi mu toll nii ñu bari ñu xam lañ ñu ñuy dégg lañ ci réew mi ak ci bitim réew ñoo xam ne nii ci loxoom la leen yàlla jaarale bañ mel noonu ñu mel kon liñ mën a wax ci moom ci ay qualité wala ci ay jikko mm-hmm. bari na lool waaye Euh, tënku waxtu wi ak ni jataay bi demee. mooy tax ba deesul mën a guddal ci ay wax. balaa ñu si di recevoir sa dañuy dem régie ñu xool mhm. euh, benn extrait bi ab mhm. séeré boo xamante ne Serigne mhm. Abdou Aziz def na ko ci Serigne Modou Khari sëñ bu baax a baax. nee sëñ Moustapha Mbacke sëñ bi ne ma nga nuyu maa ngi nuyu bokki jëre yëpp. maa ngi nuyu Serigne Mor Khary Bousso. mi ngi lay Serigne Mor Khary Bousso. ba ñu ñëwee di jaale si Serigne Bara Niang ak Serigne Ndiogu. mais ba ñu ñëwee di jaale si Serigne Bara Niang moom. Serigne Ndiogu rahmatullahi alayhi. dañu dem si Serigne Modou Bousso. dañoo dem si Serigne Modou Bousso. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. waxtu yu jot. waxtu yu jot. ñu dem ci boobu dañ doon jaari si sëñ Modou Bousso. dañ doon jaari si boobu sëñ Modou Bousso. radiyallahu anhu radiyallahu anhu. timis jot. timis jot mu ànd ak Serigne Diop. mu ànd ak Serigne Diop. ak ñi mu àndal. ak ñi mu àndal Moustapha Diop ca la bokk. ca la bokk. dem julli ji timis sa jàkka. dem julli ji timis sa jàkka. ku ñu wax booba xamaguma sëñ Modou Xari. nee booba xamaguma sëñ Modou Xari. waaye ca julli ga. waaye ca julli ga. am lu yàlla def ci sama xol. am lu yàlla def ci xolam. ba ñu génn. ba ñu génnee. ma ne ku doon jiite. ñu ne mooy sëñ Modou Khady Bousso bi ma jox ko loxo. ma ne ko xaw ma. julli yi ci des. waaye bii day wóolu na. sëñ euh, waaw sëñ maam Abdou Aziz Sy Dabakh mu mel ni baax seede baax. Mhm. macha allah <laughs> donc euh, ñu gis ne nit ku baax di seede ci ku baax. Mhm. Euh, parce que ñu waxtaanee sëñ Modou Khari Bousso cinquante ans presque nga def ko ci imaama. Mhm. donc kooku kon def na wàll bu rëy ci islam. ginnaaw loolu sëñ Abdou Lahad lu nga mën a yokk seede yooyu. waaw li ma li ma li ma doon wax rek moom la firndeel. dafa wax ne am na mu ñëw gede ànd ci julli goo xam ne. sëñ Modou Khari Bousso moo ko doon jiite. mu wax ne julli googu day amul gën julli gu ma gën a am yaakaar ci julli googu ma ànd ak suñu Modou Khari macha allah ndax euh, li ko waral mooy digganteem ak boromam ak ak ragal yàlla am ku fogoom ak it bàyyi gum bàyyi xel boroomam mm. maanaam loolu ñu bëri seere nañ dafa doon jëmm joo xam ne maanaam dafa tumuranke ci jamono ji ci ak mbaax mm. ndax boo dee xool ci wàllu xam-xam mm-hmm. wàllu jikko ju baax wàllu tabe wàllu ragal yàlla wàllu maandu eh, ak jeex ci boromam mhm. ci gëstu bi ñuy def rek eh, am na bis boo xam ne wax nañ dafa nekk këram am ay yëngutu yuy jàll yoo xam ne ay tëgg la ay ak yu mhm. ñu ñëw di ko jàmbat ci ne ko eh, tëgg mi ak yëngu yi xanaa déggoo ko mu ne ah man de loolu sax kon bàyyiwuma ci xel nga kon kooku amul mhm. lenn lu muy lu muy lu muy bàyyi xel ci àddina lu dul lu dul lu boromam ak jaamu yàlla noonu la meloon Cheikh Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne tamit bokk na ci ñi nga xam ne taxawoon nañ ak ñoom. Mhm. Euh, am na bis mu woolu ko ba mu ñëw mu bokk ak moom ay julli farata yu bari. Mhm. bi mu génnee dafa dajale mbooloo mi bañ bañ teew. mu ne leen képp koo xam ne soo gisee nitug yàlla. Mhm. wala ku baax wala ku ragal yàlla teral ko. war ngaa teral si Modou Khari Bousso bi. ndax nit ku baax lañ Cheikh Abdou Khadir bu fekkee ne seere na loolu. ak mm-hmm. moom fi mu mel digganteem ak boromam. Mm-hmm. loolu it euh, du lu du lu ci côté boobu. nit ki noonu tamit ni mu doone woon yarekat ak jàngalekat. Mm-hmm. ak it di delloo nit ñi ci yoon woo xam ne dafa leen di amal njariñ boo dee xool ci mboolem kàngam yi nga xam ne ñoo ngànk yoonu murit nga leen di dégg ay boroomi xam-xam ñu doon ñoo xam ne ñuy jëmmal yoon wi la fi mu ne nii. na ci ñoo xam ne ci ay loxoom lañ jaar. moo leen yar jàngale leen. mën nañ ci tudd ñu bëree bëree bëri nga xam ne moo leen yar jàngal leen euh, yar leen tarbiyee leen ba nga xam ne tey jii li ñuy li li jaar ci seen loxo ci ci ci wàllu yar ak jàngale ak mi ñu jariñee askan wi kenn xamul mu ne su ko takk maanaam noonu la meloon noonu la wooye fale woon addina tamit nga xam ne amut lenn lenn lu muy jàpp ci àddina foo ko mas a fekk ci ab deram nga koy fekk mu toog mm-hmm. jublu penku kenn mus ko fekk mu toog ci kaw ab lal kenn mësu koo gis tamit mu denc dara maanaam lépp lu lu fa ñëw ku fa jiitu yaa ko moom yaa ko noonu la demee woon tamit ci askan wi noonu la demee woon tamit ci rafetal ak bokk mhm. noonu la doon jëflante it ak waa kër Xaadim Rasul mbooleem këram googu nga gis eh, amul kenn ku doon njabootuk Sëriñ Tuubaa te tegoo fa sa tànk mhm. mën nañu wax ne benn doomu sëriñ bi la dogaloon ngante ne ko yow moom bëgguma ngay jóge fi nga nekk muy sëriñ Sohaybu ngir mhm. sëriñ Sohaybu kenn ku nekk xam na ne dafa taqoo woon taqoo woon ak jàngale alquran ak mu ne ko loolu ngay def dafa méngoo ak lii may def moo tax euh, su ma sañoon kat nga bàyyi su ma la soxlaa ñëw waaye ñoom dañ ko fonkoon tegoon ko foo xam ne ku mel ne Cheikh Abdoul Ahad wala Cheikh Abdoul Khadir tegoon nañ ko foo xam ne euh, ngir digganteem ak sëriñ bi mm-hmm. ni ko sëriñ bi jàppe waaye digganteem ak xam-xam ak digganteem ak maandu waaye noonu la doon koo xam ne lu mu ñaan suñu borom def ko mm-hmm. man mën naa cee joxe benn firnde ndax li may doon tuur tànk nekkoon naa fa mhm. am na bis boo xam ne jamono ji dafa dafa dafa dafa maral mhm. ba nit ñi jaaxle ci wàllu ndox mhm. waaye su masaa génn bu ñuy dem euh, ñun ñi nga xam ne gone lañu woon doon ay sëtam bu ñu daa ànd ak moom dañu daa gis mu yor mbubu mu perméable yor orosal te boobu dañ doon dem pour ñaani ndox kon kooku am na yaqin ci diggante ak borom te bu mosaa julli ba ñaan ba noppi rek taw bi dañuy dàq ko dañuy dàq ko loola lépp ko may mooy ragal yàlla ak sàmmonte ndax suñu borom it dafa dafa am fayda ci boppam mm-hmm. te dafa maandu mm-hmm. maanaam ki ko yëg rek moom lay yëg mm-hmm. ki ko yëg moom lay yëg ndax ñooñu ko ay jëmm lañu woon ci jamono joo xam ne eh, jamono laaj na bu ñu leen di fàttaliku eh, ñu ñu ñu bàyyi xel jikko yu màgg yooyu ñu yoroon surtout boo doonee ku toll ci wàllu jàng ak gëstu nga jàng ndax moom ni ma koy waxee ni mu jariñe nit ñi ci wàllu diine noonu la jariñe yoonu murit ci wàllu xam-xamam mhm. ndax tey buñu ne la moo natt jumaay Touba mhm. loolu dafa jaadu kon taalibe bu nekk delloo ko njukkal parce loolu woyefut na benn boo xam ne dafa ñëwoon ci Sëñ Mbàkke Buso euh, li ko war waraloon mooy dafa ñëw gis jumaay Touba natt ko def ay longooram ak yooyu yëpp mhm. gis ne bokk na ci jumaay yi gën a jublu ak kaaba gi macha allah mu laaj ban architecte moo doon natt jumaa ji ñu ne ko ah, lii kat kat genn góor la koo xam ne mi ngi fii moom ak ak njabootam ñoo ko doon jubale xibla mu ñëw gis sëriñ bi gis ko ne ko gis naa jumaa ji de ak ni ko natte xam naa ne yow ku la jàppale wutal la ay matériel da doon ku yéeme ci wàllu architecture euh, sëñ Mbàkke daal di muuñ daal di koy tatagal teral ko daal di koy ñaanal bi mu demee mu woo njaboot gi ne leen euh, li mu wax matériel bi mu wax ne da ko fi indi su ma fekkee man xam naa ne may def waaye bu ma fekkut da ko teg ne te jëfandikoo li nga xam ne mhm. moom ngeen doon jëfandikoo ba mu gis ko di ko naw Serigne Touba moo moo moo moo mel noonu moo bëggoon euh, digganteem ak boroomam ak digganteem ak ay nitam lépp loo xam ne moom lay jëfandikoo ci wàllu diine. Mhm. du ko jéggaani. Mhm. bëggut tamit di jéggaani koom moo xam moo tax nga gis yoonu murit duñ tabax mhm. jumaa wala ñuy def dara. di tàllal loxo fenn dañuy bëgg lépp jógewaat. solidarité noonu tamit la fer formé woon ay nit ñoo xam ne. ñii ci mbay la leen yar. ñii ci diine. waaye askanu Bousso bi nag. Serigne Touba daf leen a yar ci ñuy taxawal diine. muy jiite. Mhm. ak jàngale ak yaay. waaw yooyu ah, mhm. euh, mhm. nga xam ne alaajam def na ko ni ko sëñ Abdoulaye waxee rek. li muy tekki rek mooy liñ doon wax léegi muy ak ragal yàllaam di tekki ak maandoom di tekki cër bu mu amoon ci digganteem ak boroomam si mbiru xel daal boo ko doon tënk ci gàttal. bokk na ci jaami suñu boroom yi nga xam ne mel na ni yàlla bëgg ñu mel ko. ci dëddu àdduna ak toroxlu ak sax ci jaamu yàlla jeex takk ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ak bëgg sëriñ tuuba àggoon na ci ak bëggam sëriñ Touba su koy waxtaanee wala muy fàttaliku lenn ci jataay yam am ak sëriñ bi du tudd mukk turam mu tedd ma lu dul ay ronkoñam day wàcc ci suuf. Mm. loolu day wane dayob cofeel gi nga xam ne moom la amoon ci moom. Mm. doonoon na it koo xam ne ku mos a ñëw ci moom benn ci ñett yi nga koy fekk da koy fekk mu nekk si jàng alxuraanu karim mm. wala nga fekk ko muy jàngale yi. wala nga fekk ko muy naafila wala nga fekk ko rek ci yu mel noonu loolu li muy tegtale rek moo di li suñ borom di wax ci alquraanu karim ñi nga xam ne tagg na leen ca nga xam ne dañuy nekk di eh, jaamu seen borom ci waxtu yi nga xam ne nekk nañ ci wér mu di jéggul suñ boroom te itam néew doole yi saa yu dikkee ci ñoom ñu dimbale leen mm-hmm. daraja yi ñu am suñ borom aaya boobu sëñ Modou Khari firi na ko kaanu xalilan mina layli maa yahjahuun wa bil ashaari hum yastaghfiruun o fi amwaalihim haqqun lissaa'ili wal mahruum kon sëñ Modou Khari daal ci tënk gu gàtt nit la koo xam ne jot na sëkk wala boog jaadu na ci jamono ji ñu toll ñun ndaw ñi ñu delloo si waatal ñu ko comme ni ngeen ko defee soxna Fatou ba li ëpp ci réew mi xam ne am nañ ay royukaay mhm. yoo xam ne war nañ leen a roy ci jikko ju rafet mhm. war nañ leen a roy ci maandu war nañ leen a roy surtout mhm. war nañ leen roy ci qualité yoo xam ne mm-hmm. dina tax ba du ñu am benn problème suñu digganteeg suñu moroomi jàmm mm-hmm. waaye du ñu amit benn jafe-jafe suñu digganteeg suñu borom mm-hmm. Ah, xam nga rek Fatou Diouf euh, li ñuy wax euh, ci ci ci si njàngat biñ ci def mm-hmm. euh, mu nekk ku accessible mm-hmm. ci ci ci li ñu ci déggee mm-hmm. ndax nekk ci àdduna lépp wuyu si la nga mën a téye lépp waaye ba lépp dëddu lépp daal di topp li nga xamante ne moom mooy suñu borom wane ko parce que tey dañ dañu xaw a tumuranke trop tey ci bëgg jot ci sa sëriñ jot ci mhm. moom mhm. ah tey tey tey tey da ngay bëgg a gis sëñ bi sax mu mel ni ñaari taalibe am mhm. dafa ne da ngay bëgg gis sëñ bi doo ko doo ko teg bët am na ci koo xamante ne bu jógee rek ci sëñ bi la jëm eh, ñii dañu accessible loolu ba nga xamante ne amul woon ñaari taalibe da ngay ñëw bëgg a gis sëñ bi jot ci moom directement defe naa mu nekk euh, macha allah waaw uh-huh. ñoom liñ daan bàyyi xel ci nit am amam liñ daan bàyyi xel ci nit mooy sunu borom taala sëriñ bi dafa wax ne waraaxi fii kulli xalqin xaq man xalaqa képp ku mën a doon ci moom ci ci ci jaam ñi rek li nga war a bàyyi xel ci moom mooy suñu borom mi ko sàkk ñoom foofu lañ nekkoon ku ma ku ku ñëw ci ñoom la la fa indi la xool lu mu doon la la fa indi ki nga xam ne pas-pasam moo ko fa indi ci taalibe ka am ay milliards ak ka ca amub dërëm ñoo ci yem képp ci moom te noonu mooy doxinu Serigne Touba. Mhm. léegi la jamono dem ba matérialiste gi xew. Mhm. ni mu dalee ñëpp rek am ñoom dalee ci Serigne si. Mhm. waaye loolu du lu kenn xam. ñoom nekkuñu woon foofu. fi nekkoon mooy di xool nit ñi ci li nga xam ne moo dox seen digganteek moom te mooy yàlla mi mi nga xam ne moo leen indi ci Serigne yàlla lañ daan wut si ci ñoom. loolu nag bu fekkee ne nit ki ñëw na ngir loolu te mooy bépp taalib bu mën a doon bu ñuy wax ab taalibe sàkku ga muy sàkku yàlla ci sëriñam a tax kon bu ñëwee waree su cee am xàjj ak seen ci kii man na dara ak mënu dara ñoom nekkuñ woon ci si yooyu mhm. moo tax loolu it luñ leen war a roye la te jamono jiñ toll surtout ñun ndaw ñi mhm. war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax war nañ ci bàyyi xel bu baax solo Fabien ñu mm-hmm. dem ci dernier point bi rek di mm-hmm. màggal bi nga xamante dañu ko war a amal ci 24 mm-hmm. janvier pour ci Guédé Bousso màggal bi kañ ngeen ko commencé sëñ Abdou Lahad kan moo tax màggal boobu am waaw euh, màggal gi euh, ak ñaan la maanaam ndax comme ni ma ko waxee maanaam moom ni meloon ci àddina tax na euh, ay mbiram duñ ko niroole ak yi nga xam ne mooy xew ni maanaam ki nga xam moo ko bi nekkal di sëñ Mbàcc Bousso di sëñ Masamba Bousso maanaam li ko gën a ñor ci bis bi mu koy defal. depuis 93 ba léegi mu ngi koy def euh, la ko tàmbali. waaye njàngum alxuraan bi moo ko ci gën a yor maanaam su jubee mboolem daara kaamil yi nga xam ne ñoo aju ci yoonu murit daf leen di yónnee ay bataaxel ñuy jàng alxuraan mu am nag bis boo xam ne ci la ñuy ñëw yendu si ngir toog benn jataay jàng fa fukki kaamil ak ñaar mu symboliser bis boobu mbokk yi ñëw ak taalibe yi ñu waxtaanee tamit ay jikkoom ci ngoon gi. maanaam bis boobu nga xam ne suñ kilifa yi bu ñu ñëwee euh, ci lañ fay jàng alquran karim bokkut ak yi ñu jàng ci daara yi loolu kon bisum ñaan la ak fàttaliku suñ demee ba ngoon ñu def benn waxtaan boo xam ne waxtaanu diine lay doon boo xam seet lu yitteel nit ñi ci seen wàllu diine waaye méngale ko ak ak dundam voilà tomb boo xam ne dañ ci mën a jariñu méngale ko ak ak dundam mm-hmm. euh, waxtaane ko ren yaakaar naa suñ Fallou Moussa Tamba moom moo koy def mm-hmm. loolu kon la ak fàttaliku waaye du du du du bokkut yenn màggal yi nga xam ne mm-hmm. euh, noonu lañ koy defee ndax mm-hmm. euh, buñ dee wax tamit moom it ak ragal yàllaam ak dëddu àddinaam mm-hmm. maanaam dafa feeñ ci ak njabootam daka naa seen nattago bii di naa Omar ba xëy na man naa am na bis waroon naa ànd ak yéen ñëw gede euh, ci kilifaam googu waaw Seydina Omar ba waaw waaw taalibe la su ngeen ko fekkee da ngeen gis ne kii ñu doon waxtaane waajuram day maanaam ki ko ki ko wuutu dond na ko lool ndax yi ñu doon wax ci wàllu ñaan yeeg kii yeeg yu deme noonu maanaa lu am solo la waaye di ko defloo fu ñu ko war a defee dafa am solo mm-hmm. mooy xool nit yàlla yi mm-hmm. nga xool li nga bëgg ci sa njaboot mm-hmm. li nga bëgg ci sa sëy li nga bëgg ci sa dund nga joy jëm ci ñoom ñaan loo leen ci côté boobu moo ëpp solo ci àddina maanaam si moo defar yi noonu la meloon maanaam bu doon fajkatu ajo boo xam ne képp koo xam ne wéradi wala aajo wala soxla su masaa dugg ci am noppam dafay daal di ñooñu nag euh, ñi ngi fi ba léegi kon bis boobu bisu fàttaliku la. ak ñaan boo xam ne dañ ci fàttaliku ay jikkoom comme ni ñu koy waxtaane nii. Mm. waaye dañ koy ñaanal ndax sëriñ bi dafay wax ne bokk na ci eh, bokk na ci cat dëgg dëgg dëgg nit baax a baax a baax ba jóge fii ñu ne mënut a ñaanal ngir ak baax. Mm-hmm. ndax fu ëllëg foofa dara du fa doy. Mm-hmm. dara du fa doy. Mm-hmm. Euh, sëriñ dafa wax ne ñi gën a euh, faatu li ñu gën a yittewoo mooy dellu si àddina ngir def lu baax. donte asca la moo tax ñi ko fi wutu te suñu borom euh, bokk na ci àq yi mu teg waajur mhm. ak yi nga xam ne mooy sansu ko fi jóge mu am mhm. doom ju baax ju mu fi bàyyi mu di ko ñaanal loolu nag moo tax ñi ko fi wutu muy sëriñ Bàcc Bousso ak sëriñ Modou Khari mhm. ànd ak mboolem taalibe yi yi nga xam ne ñoo ci aju euh, ak seeni njaboot euh, bu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rakki gàmmu rakkaati gàmmu ñëwee ñu dajaloo ci gede te penc ma ñaanal ko bis boobu nag mooy le vingt-quatre janvier incha allah sëriñ bi kon mi ngi ciy tàllal kilifa yi diine yëpp euh, jullit yëpp ngir ñu bàyyi ko xel ci alquranul karim bàyyi ko xel ci xasida bàyyi ko xel ci salaatu ala nabi ak it bokk yi nga xam ne ñoo jege foofa ku mën a ñëw ànd ak ñoom bis bi nga ñëw ànd ak ñoom mm-hmm. ñu ngi ciy soññ it bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii Ndakaaru ñu mel ne sëriñ Abo Sall di jëwriñ ju mag ci waa Gédé doon it euh, ku baax nekk fii ci Pikine ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo fi aju xëy na sëriñ Amadou moo moo leen gën a maîtriser suy tëj dina ci ñëw waaye loolu daal mooy bis bi bisub ñaan la ak fàttaliku bëccëg lay doon mhm. suñu noddee timis lépp jeex suñu bi ñaan loolu nag mi ngi war a doon insha allah talaata bii di la mhm. le 24 ci weeru janvier eh, ci Guédé ci pencum Guédé yaakaar naa xëy na mhm. eh, Guédé bu ngeen fa musa demee xëy na dégg ngeen ko ba tey Guédé bu sawa eh, ci penc lay doon foofu ci kër sëñ Maodo xëy sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp nag li ci séntu ñëpp insha allah talaata ak jàmm talaata incha allah mm-hmm. Fatou Diouf mu waxtu bi mm-hmm. xoj nañu ñu bàyyi la rek nga tëj. waaw li ñuy li ñuy li ñuy leeral rek mooy 24 décembre. 24 décembre 24 décembre waaw bii di ñëw muy talaata bii di ñëw. mardi mardi allah. Mm-hmm. noonu ko sëñ Blade waxee. jàng alxuraan lay doon ak xasaayit durus ba ngoon ñu amal fa waxtaanu diine bu am solo. boo xam ne dina yeesalaat lu bari ci pas-pas yi taalibe yi. bu ko defee sëriñ bi ñaan ñu ko sëriñ mi ngi ciy woo ñëpp ñu ngi koy yëgal ñëpp di wax ne ko seeb laan waxee boo duggee ci ab lim rek da ngay juum waaye mi ngi soññ mbooleem jëwriñ yëpp euh, alaaji bu sàll moom mu wax ak alaaji Maguette am suñu Serif Mbay ak euh, seeni njaboot ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñoom ñëpp sëriñ bi mi ngi leen koy fàttali di leen wax it ñu def ci taxawaay yéen ci daan taxaw ngir yi nga xam ne moo war warlu digganteem ak wala moom moo ko warlul boppam digganteem ak ñi jàng alxuraan ci bis boobu yëpp ñu def ci nañ ci daan def mhm. di ñaan lépp luñ fa ñaan suñu borom jotale ko ci yool bi mhm. ak mbooleem way jiitu yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm nag di mhm. sant Seydina Omar Ba mi nga xam ne ci pas-pasam ak taxawaayam ci la jotaay bu mel ni amee ñoo ngi sant suñu waajur yi ñu àndal itam di suñu war mosoo mhm. di leen sant di leen gërëm yéen itam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Fatou Diouf Faye mu mel ni macha allah jeex na donc di buñ ko waxee rek euh, di jaajëfal waaye tamit mhm. Seydina Omar Ba di taalibe mhm. foofu ci mhm. fu ñuy gédee Bousso euh, donc di ko jaajëfal di jaajëfal tamit euh, Fabel mbokk téléspectateurs yi di leen wax rek di daje incha allah ci beneen ajjuma incha allah jaajëfal nañ la Fatou Diouf waaye jaajëfal it say gan bu baax a baax donte ay ndaw lañu waaye li fi génnee tey macha allah ci ci ci ci xam-xam ci teey geeg ci yi lépp daal li ñu naan li ne ci xol day feeñ ci kanam oh. ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax sey Seydina Omar baax ñu koy sant di ko jaajëfal bu baax a baax di nuyu waa Kër Mbay Fall yëpp nag ah di ko teg ci loxo say say sama tante say Diop ma maa ngi koy teg ci sa loxo nga nuyu ma waa Kër Mbay Fall yëpp ah, chéri Papa Tall nuyu naa leen bu baax a baax a baax a baax a baax waa Kër Mbay Fall alors dafa mel ni waxtu wi ñu le woon na ah, jeex na li ñu subaak yéen ñu ngi àndoon ak yéen di leen jox euh, rendez-vous vendredi prochain incha allah ci seen beneen euh, émission petit déj laata loolu xale yi dinañu ñëw dès lundi incha allah noonu rek lay demee jaajëfal bu baax a baax Charles René Fall mi nekkoon ci côté technique bi ak ajaratu Penda Diallo Guèye di leen wax euh, juma mubarak